jukki leen li gën a fës euh, ci biir euh, internet bi dañu koy doore rek mbiru Adji Sarr ak kii di Ousmane Sonko buñ sukkandikoo rek euh, ci l'observateur kii di Adji Sarr dafa wax rek ci kanamu enquêteurs yu section de recherche ngir xamal leen ne doon na amal ay rapport sexuel ak kii di osmaan Sonko waaye nekkul woon rek daan protégé wu ndax nee na moom bu ko masaana defar rek lii di massage bi daf ko daan wax rek tonton parena mais nag daawu ko déglu ci la ko daan répété waatee rek ne ko tonton rek parena naa ci massage bi mu ko doon defal waaye rek kii di Ousmane Sonko daf ko daan xamal ne ko ndax xàmmee nga ma waaye Adji Sarr daf ko daan wax rek ne ko xàmmeewu ma ndax yow dama laa war rek xàmmee ci noonee rek nee na la ko daan forcé ngir mu rek tëdd euh, ci table bi defal ko rek massage bi waaye bu massage bi pare rek daf ko daan rek simi ay yéreem ngir rek daal di koy euh, violé waaye rek kii di Ousmane Sonko daf ko daan digal rek ngir mu daal di rek di naan ay pilule moom la ko daan digal ngir mu di ko jënd ginnaaw rek bu daan daan def ak moom yile rapport euh, sexuel ba tey rek euh, ci Adji Sarr rek daal dinay xamle waat boobu lee euh, plainte moom moo nekk auto bi moom moo daal di plainte rek kii di leaderu Pastef bile ginnaaw rek ci ay viol répété ak ay menaces de yoo xamante ni bii rek kii di Ousmane Sonko loolu na ko ko daal di def rek moom aji Sarr ba tey rek ci mbiru aji Sarr ndax gis nañ rek kii di maamam bu jigéen daal dinay xamle ne moom moo ko yar waaye nag yaru ko benn yoon rek ci ay fen ak tonton moom bii rek loolu la daal di xam ne nee na Adji Sarr sob na lool waaye nekkul koo xamante ni rek day fen kon nag bu waxee lii rek kon lu am la te ñoom rek bëgg nañoo gis seen doom bëgg nañoo tamit jokkoo moom waaye jamono ji rek mënuñu koo gis ndax maamam nee na yar boobee nga xamante ni bii rek def na ko ci moom mayu ko benn yoon rek muy génn ginnaaw rek lu ñaaw lii nga xamante ni bii rek xew na ci digganteem ak leaderu Pastef bile di Ousmane Sonko waaye yamu ca nee nañ rek ñi ngi ñaan rek état wu Sénégal daal def rek liggéeyam ginnaaw rek yëf yi mu ngi ci justice dañuy xaar rek ba xam rek fan la wànneti rek di mujjee kii gëtëm ah, ci biir ah, dossier dox ci diggante Ousmane Sonko ak ah, kii di Adji Sarr ba tey rek euh, ci Ousmane Sonko la ñuy daal di euh, desani gis nañ ki nga xamante ni rek euh, moo di yaaxam mbay nekk directeur général du quotidien national Le Soleil daal di xam ne rek ci ginnaaw rek ab émission bu mu seqoon nag bu nduur foofe ca 7TV lam fa xam ne rek moo nee na Ousmane Sonko rek am na ay njombe yu bëri yoo xamante ni bii rek def na ko te bu génnee rek deram dina yàqu ndax moom mi ngi wane ne moom di incarné ne Ibadou Lac yu ni mel moom moo ko xamle waaye nee na yooyu les euh, dossier rek euh, bis bu xasee rek euh, ba génn ba tasaaroo kii di usmaan Sonko dina am gàcc rek ci kanamu sénégalais yi ñu daal di àddu euh, ci leneen gis nañ rek ki nga xamante ni moo di euh, Moustapha Diakhaté ginnaaw rek ba mu génnee ay kàddu rek yoo xamante ni kenn rafetlu ko daal ko jëmee rek euh, ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu lee kàddu nag képp koo xamante ni rek ab jullit nga naqarlu nga ko ay oustaz ñëpp rek daal dañuy génn ngir def vidéo di naqarlu yooyu kàddu nga xamante ni kii di Moustapha Diakhaté daal dina koy yëkkati jëmee ko ci prophète bile waaye nag moom Moustapha Diakhaté daal dina rek bind ab lettre ngir xam ne ne jéggulu na umma islamique bi yépp te nee na mbir mi rek dootu ko dalati euh, benn yoon bis bi waxati rek dina xam rek li muy wax te bu soobee yàlla rek mbir mi dootu ko waxati benn yoon mi ngi rek jéggalu képp koo xamante ni rek yilee euh, kàddu metti na la lool rek moom mi ngi lay baalu àq rek euh, bu baax a baax ñu woyandi rek wax bi la yoon rek ci vaccin yi jëm ci covid 19 bi lee ñu gis na rek président Macky Sall rek démb daal na jot nag première dose bi cent rek vaccin yoo xamante ni bii rek euh, jotaguñ nañ ko muy xam le nekk condition yi nga xamante ni bii rek jëloon nañ ko rek ci Covid bi ba tey rek danañ ko wéyandi rek ngir mën a amal bile campagne de vaccination rek euh, jëm ci Covid bi kon muy xam ne rek lépp loo xamante ni bii rek matukaay la danañ ko daal di jël rek ba ñëpp rek mën a def bile vaccin dañu koy daal di jeexale ak màggalu ak Kazu Rajab ñu gis na rek kii di sëriñ Abo euh, Falilou nekk xalifa Serigne Fallou rek ci sëriñ euh, Muntaxa ngir jëri ndigal rek si màggal gi waaye sëriñ Muntaxa rek daf ko daal di xamal ne nañ ko def rek comme niñ ko defee woon rek euh, daaw ndaxte ba tey Covid bi mi ngi fi lépp loo xamante ni rek jamono ji rek da di ab dajaloo dañ koy bañ ba tax rek sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides daal di koy digal ñu defee ko rek nañ ko defee woon daaw rek mu di huis clos loolu rek la ñu di mën a jàppoon ni rek mu di ndigal li euh, sëriñ Muntaxa rek daal daal a euh, joxe lii rek moo fi gënoon a fës dig dajalay doon ba ëllëg ak jàmm.